mais yow làmp yii ci set village waay ay nit lañu mais koo xam ne bëgg a juddoo ba léegi 1901 ba léegi musoo am courant ñu mën a jël courant bi di ko fëral ci bitiw gi nga xam seen làmp yaa ngi tàkk ak Tiwaawan ak partout fu nañu def fa courant bàyyi àll bi jaani yeeg lépp ci biir àll bi mais nañ yóbbu soleil nañ ko yóbbu ci village yi village yi xam ne ba juddoo ba léegi mosu ñoo am courant ñi ngi leen def nañ ko yóbbul foofu xam ne yéen

dina am si balaa ëllëg mu yàqu dañ ko jox village yi àll bi nga gis seen kàddu moo ci sama kàddu ngeen jàpp ci ñu wóotu ko jox ko àll bi te ñu dindi ko fii ñu ko def amul benn sens am nañ courant a loolu daal laa ne woon ngeen ngeen jëm ci jàpp daal mu jàll parce que tam adduna tam noonu la li nga tanee nit rek nga jàppale ko waaw salaam muy ko joxe kon lu waaye am da nga ci sa morom mais xam nga nekk am courant courant lob courant tiim la dina tàkk soleil day ñëw ñu wëlbati ko joxaat ko ñu am courant ñu def ko remplacé ko seen kër yi ko xoolaat tam xam ne loolu rafetul mm-hmm. ko defee ñu jëm ci waxtaan xam nag jox jox ko ñu ko yelloo tax kenn ku jël li nga moom mm-hmm. parce que adduna bi saxuñu fi dañuy xëy xëy def yàlla na yeex mm-hmm.